dañ leen di rek jukkil li si nar a gën a fës bokk na si coowal opération de déguerpissement bi nekku jamono gi fii si mim réew mu di opération yoo xam ne kilifa yi jiite gox ya goxaan yi ñoo koy amal ay a ngi nii di yëkkati rek jaaykat yi nekk si tali bi ak it fi romb marché yi mu mel ni nag nguur gi taxaw na ni yëgul tinul santaane wala lu ni mel looleel daal la ñu jot jàpp si poste boo xam ne élimaanu jëwriñ yi Ousmane Sonko moo ko fësal niki démb ne tey dina génn wax indi si ay leeral jàpp leen ni nag am na ab circulaire maanaam bataaxal bu tukkee si jëwriñ gi gàll wàllu biir réew mi ñu bind ko juróom-ñaari fan si weeru mee gi ñu génn sa boobule nag bataaxal euh, kilifa gi la mu sant ñi jiite gox yeex goxaan yi mooy rek ñu amal yooyu le opération xàll yoon yi fii si Ndakaaru Njaay leeral yi si ndoxteelu bi lay jotaay xibaar lay doon daañu àddit euh, jëmale ci santaane gi tukkee ci Ousmane Sonko di élimaanu jëwriñ yi moom mi rek euh, sant ministère yeek direction publique yi ñu fa fësal balaa benn fan ci weeru juillet gi ñu dëppmal contrat yi nga xam ne jot nañ ko xaatim lu ni mel nag dafay euh, ñeel projet bi nga xam ne nguur gi am na ko ngir rek jubbanti andi ay leerlu ci anam gi nga xamee ni noonu lañu ñu jiite administration publique bu réewu Sénégal lépp daal lañu ñu bëgg mu leer nañ leeral yi tamit la jotaay xibaar lay doon daa daañu jeexaleek élection législative ya tàmbali tey ji sa réewu France lu tollook ñeent fukki million yu doomu aadama ak juróom-ñeent la ñu woo sa bañ gàcc ya ngir rek ñu tabb ñi leen war a teewal sa seen pencum ndaw réew mbokk yi li moo gën a fës si bopp jotaay xibaaru diggi bëccëg gi neskis ñu ñëw ki yéen si yaatal gi gouvernement bu réew Sénégal raxas na nag loxoom ba mu set ci opération de déguerpissement yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci biir réew mi ay fan a ngi nii ñi jiite gox ya goxaan yi di amal yooyu la opération di yëkkati rek jaaykat yi nga xam ne dañoo nekk ci booru tali bi bay sax andil euh, doomu aadama gàllankoor ci seen wàllu dem ak dikk ak ñi nga xam ne dañoo lal fu romb lool marché yi kilifa yi ñoom ñoo ko tàmbali waaye nag nguur gi nee na lu ni mel yoonam nekku si loole daal la ñu jot a jàng si poste boo xam ne élimaanu jëwriñ yi Ousmane Sonko moo ko siiwal niki Demba. jaare ko ci ab post ci page Facebook am Ousmane Sonko di wax ni xamul lan moo sabab opération de désencombrement yi nga xam ni ñu ngi koy amal ci Ndakaaru ay fan a ngi nii nemmeeku nañ ay déguerpissement ak désencombrement fépp ci réew mi. te ñi ko waral di ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy collectivité territoriales yi man mi nag en tant que premier ministre dina dem Colobane tey jilee ci dimanche bi ngir rek daal di dem euh, jàllale li nga xamante ne ni moom mooy message wu président de la république. waaye mu mel ni premier ministre bi de fàtte na wala sax xamul bataaxal bii nga xam ni daal na tukkee ci ministre de l' intérieur am juróom-ñaari fan ci weeru mai atum 2024 bii ñu weesu moom Jean Baptiste Tine doon sàkku ci gouverneur yi ñu jox gëdd mbir moomee mu jàppoon ni dafay indi ay accident ak yu ni mel ci tali yi loolee taxoon mu jox ndigal président de conseil départementaux yi naka noonu maire yi ñu amal ay activités sensibilisation jëm ci loolee waaye itam daal di sumb. ay opération de désencombrement naka noonu daal di koy topp waaye opération yooyu juróon coow commerçant yi ak marchand ambulant yi doon ko nakarlu mu mel ni looloo tax nguur gi deltu ci ginnaaw ñu àddu euh, jëmale si coow li am niki démb ci pencum ndaw réew ma di assemblée nationale ba war rek tax ñëw gantal débat d'orientation budgétaire ba fa waroon a am niki démb jëwriñ gi gàll wàllu finance ak budget du Cheikh Diba waroon a jàkkaarloo rek ak député yi li waral nag euh, coow li du lenn lu dul euh, kàddu yi nga xam ne ilimaanu jëwriñ yi Ousmane Sonko yëkkati woon na ko di xamle rek ni boo mayul dina defee feneen fu dul assemblée nationale. nationale déclaration de politique générale am ñi fare nag si euh, kujje gi euh, dina naqarlu lu ni mel loolee waral ni ki démb ñu lànk ne duñu dalal kii di Cheikh Diba dañuy teelu leeral yi ak Jibril Diallo. lettre bi di Ousmane Sonko bind ngir tontu député bii di Guy Marius Sagna jëm ci wàllug déclaration politique générale am moo tax ñu annulé débat d'orientation budgétaire mi nga xam ne waroon nañu ko amal ci samedi bile. li nga xamante ne moo waral suspension bi mooy moom ci boppam déclaration boo xam ne amul benn worma bu mu jox assemblée nationale. ci biir lettre ba Ousmane Sonko dafa xamle ne fii lekk fukki fan ak juróom ci weer juillet gi ñuy waaj a dugg bu fekkee ne soppiwuñu réglement intérieur bu assemblée nationale dina def déclaration politique générale am feneen fu dul assemblée nationale mu doon naka loo xam ne opposition ba daal na koy ñaawlu. maanaam day dem daal foo xam ne day woo sénégalais yi woo ay ñeneen ak ñeneen Sénégal république la Sénégal réew la boo xam ne dafa am ay droit ak règlement dafa am constitution. député Yewwi Askan Wi ñoom ñu jàpp ne li yëpp aljuma gi ci ngoon lañ ko orchestré gannaaw conférence de presse bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar doon amal ayib dafee ak ñoñam di joxoñ baaram tuuma njiitu ko assemblée nationale. ko convoqué sous la pression mais du yëfu loo xam ne moom moo ko def du sañ-sañu boppam si ay caaxaan nañuy doxee. si maatay nañuy doxee ci tappale nañuy doxee. buñ sukkandikoo nag ci ayib dafee débat d'orientation budgétaire mi nga xam ne dañ ko annulé du gàllankoor dara liggéeyu gouvernement bi. liggéeyu gouvernement bi day continuer du am dara lu lu am dara lu ñuy tere gouvernement bi daf député yi kay nañu tere wax. député yi nañu tere daf seen liggéey. xëccoo mi nga xam ne nag am na diggante pouvoir exécutif ba ak pouvoir législatif bi ku moywul crise dina am diggante ñaari institution de la république yi Assemblée nationale euh, googee sax la ñuy euh, des euh, ba tey ndax waa forum du justiciable bind nañu ab bataaxal jébbal ko njiital Assemblée nationale sa boobule bataaxal nag Babacar Ba ak ñi mu àndal la ñuy sàkku rek mooy Assemblée nationale andi jooyanti ci seen règlement intérieur règlement intérieur googee nga xam ne ay mbir yu ñu sa dindi moo waral kii di élimaanu jëwriñ yi di Ousmane Sonko lànk ne du fa defee déclaration de politique générale am coowub déclaration politique générale bu premier ministre Ousmane Sonko ba léegi moo ngay wéy ñu bëri nag ñoo ngi ci addu bile yoon forum du justifiable moo daal di jébbal ab bataaxal kii di président assemblée nationale di Amadou Mame Diop Babacar Ba ak ay àndandawam daal di rek woo président bu assemblée nationale mu daal di rek amal ab mise à jour ci règlement intérieur bu assemblée nationale ngir rek permettre ay limaanu jëwriñ yi mu mën a amal déclaration de politique générale am te nag mu mën koo jaarale si yoon méngale ko ci article 55 bu constitution ñoom nag ñu daal di xamle ne ko jamono ji ab mise à jour moo daal di imposé wu loole nag ginnaaw bu ñu adopté foofee ci assemblée nationale projet de loi constitutionnelle bu numéro 38 2021 bu 10 mi nga xamante ne dafay daal di restaurer poste premier ministre organisation bi daal di woo majorité parlementaire yi ñu jël matuwaay yépp ngir rek ñu mën a réactualiser bi les règlement intérieur bu assemblée nationale si bile lettre nag forum du justifiable dafa xaw rek méngale gis-gis ak kii di Ousmane Sonko moom jiiteelu gouvernement bi nag ginnaaw bi mu daan tontu député bi di Guy Marius Sagna daal di woon rek ñëwaat si lan moo dell déclaration de politique générale am te nag mu daal di xam ne ne que ay incohérence yi nga xamante ne ñoom lañ nemmeeku foofee ci assemblée nationale ñoo ko daal di taax

ki fi euh, nekkoon élimaanu jëwriñ di euh, amadu Ba moom àdduna si coowal déclaration de politique générale googe euh, ñuy rek rumandat fi si réew Sénégal moom amadu Ba nag si bataaxalam googe mu ngi fàttali ni article cinquante cinq bu ndeyu charte réew mi li mu santaane mooy képp koo xam ne dañ la fal élimaanu jëwriñ nga dem foofee sa pencum ndaw réew ma def sa DPG niki ni ko yoon santaane lu nu mel nag si ay kàddoom tradition républicaine loo xam ne Sénégal daka baaxoo ay ati at a ngi nii nee na DPG googe wareef la si kulli premier ministre bu ñu fal loole daal la jàngat si communiqué bi nga xam ne Amadou Ba moom ma ko siiwal. junj naa leen ko si boppu xibaar yi si lu ñeel seen yéene googee ñu am jub jubal jubbanti lépp lu ñuy rek euh, jëfee fi si réewu Sénégal loolee waral nguur gu yees gi taxaw teme di sàkku rek si ministère ak direction publique yi nekk si miim réew ñu fexe rek euh, bay leeral anam gi nga xam ne noonu nee nañu yore liggéey bi ak it euh, ñu fexe it ba wàññi dépense su nguuru Sénégal loolee waral nag limaanu jëwriñ yi di usmaan Sonko. bind ab circulaire maanaam bataaxal jébbal ko ña jiite yooyu le ministère ak direction la muy sàkku daal si ñoom mooy ñu jébbal ko fileeg benn fan si weeru juillet atum 2024 bépp contrat boo xam ne xaatim nañu ko si gannaaw ñetti at yi ñu weesu. ci ab not circulaire bu ñu bind urgent élimaanu jëwriñ bii di Ousmane Sonko mu ngi sàkku ci jëwriñ yi ak secrétaire d'état yi ñu dal di koy jébbal gën kaa sori benn fan ci weeru sulet 2024 ay xibaar yi koy càmbaral yëngu-yëngu ci wàllu koom ci yooyu la département ak seeni agence yooyu la xibaar bokk na ca dal di def inventaire contrat ak convention yi ministère bu nekk rek war naa indi ab relevé boo xam ne dafay fësal accord yi nga xam ne signe nañ ko moo xam ak cabinet d'expertise moo xam ñu nekk juridique wala comptable wala beneen xeet bu mu mënti doon dal di def tamit inventaire recrutement yi ab rapport détaillé lay xaar ci ay embauche yi nga xam ne def nañ ko ci diirub ñetti at yu bokk na ci 2022 2023 ak 2024 loolee tamit dafay mooy dikk ci contrat yi nga xam ne à durée la wala à durée déterminée ñoom ministère yooyu itam dañuy xaar ci ñoom ñu indi ay contrat prestation publicitaire yi nga xam ne signé nañ ko mu dox ci seen digganteeg daluwaay bu mu mënti doon Ousmane Sonko tamit dal di nay sàkku ci membre yi ne ci bile gouvernement ñu dal di tegandi ci suuf bépp convention ba ñu noppi ci bile liggéey. li tax a jóg bile doxalin nag mooy fexe ba rationaliser dépense yi nga xam ne état da koy amal bu ko defee ñu mën a am résultat yi ñuy xaar moom njiitub gouvernement bi nag li mu xam xamle mooy ne jot na ñu dal di amal yorin bu sell ci finance publique yi moom Ousmane Sonko nag dal di nay sàkku yooyu le xibaar ñu koy jox mu dal di wér te wóor bu ko defee rek ñu dal di mën a jëmmal li nga xam ne moom mooy sàkkuteefam ñu àddu jëmale si leneen si bile jotaay xibaar ni ngeen ko xamee nag euh, fii si réewu Sénégal njëgu ceeb bi dëwlin bi mburu bi wàññeeku na bu baax a baax waaye seetlu gi nag moo di ni euh, am na leneen loo xam ne moom njëgi dafa gën a yokk muy njëgu fruit fruits yi nga xam ne dafay bawoo biti réew di dugg si fii si réewu Sénégal yëfi daal yokk na ba jeggi dayo fu mel nag Sandiniéry bu Ndakaaru jàkkate ñoo ngi jooy ndax nee na gisatuñu ay clients li leen gën a sonal it bokk na si opération déguerpissement yi ñu amal fii si Ndakaaru nee daal saa yi ñu lalee ñu yëkkati leen lii di leen jural loraange si seen wàllu liggéey màng ba ci banaana ñu jaaxale ko ci orange papaye ak li ni mel maanaam fruit yi yépp ñu ngi fii ci rue Sandiniéry waaye nag ñii di jaaykat yi gis gisaguñu seen bopp bu baax jamono jile ñoom nag ñuy xam ne ne que clients yi bëriwuñu te nag njëg yi dafa daal di yéeg. Ah, njaayam fruit bi actuellement ci jamono bi doxul semaine bi moom sonn nañ loolu njëg yi tamit dafa yokku actuellement nii depuis julli ji passé fruit bi dafa yokku actuellement nii fruit bi bariwul. yokku te doxut. non man koy mu gëj a yomb yàgg na te carton bi dafa cher ay carton plus de cinquante mille ci kaw. jamono ji nag mango moo gën a fees ci marché bi fi nga xamante ne banaan dafa xaw a manqué. mango la moo mango moo dominé tànn du Dakar bii la manqué lii doo ñëw moo moo wàññeeku léegi du kee noonu. juróom conteneur yi bu doon ñëw porte sànni pour Sine léegi ñetti conteneur yi ñaari conteneur mooy ñëw. comme ni ko yeneen commerçant si biir Ndakaaru di ko dundee ñi ñu fekk foofe ci rue Sandiniéry itam ñoo ngay jànkonteel jafe-jafe déguerpissement bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko si biir capitale bi si fan yi ñu nekk mu nekk ab situation bi nga xamante ne daal na gàllankoor. seenub liggéey. non actuellement ni Sandingère moom jafe-jafe la ñuy dund jafe-jafe jafe-jafe bu métti da dangay xëy di daxante ak ramaat ba suba ba ngoon noonu ngay ñibbee ak loxo nen. bu deesoon si ñàkk marchement bi rek duñu am benn problème dañuy xam ne dañ koy jàppee noonu rek comme pour wi moom léegi-léeg mu dox léegi-léeg marché boo gis noonu la léegi-léeg day dox léegi-léeg mu taxaw. mais actuellement nii mun nañ ne ramade bi mooy ñu sonal. ci seen wàll ñii di clients yi ñoo ngay ñaxtu chertéew njëgu fruits yi te nag ñuy woo ñii di njit yi ñu xoolaat rekk prix yi comme niñ ko defee ak yeneen denrée yi. ba tey si lu soxal xibaaru digg bëccëg gi dañuy wutali ministère bi ñu dénk wàllu napp gi foofee moom lu tollook téeméeri liggéeykat amoon i contrat ñoo nekk jamono gi si njaaxare ndax seen contrat yooyee dafa war a jeex tey jii si dibéer gi yem ak fanweeri fan si weeru juin atum 2024 lu ni mel moo waral rek ñuy sàkk si kilifa yu yees yi leen jiite ñu rek euh, yeesalaat seen yooyu le contrat ba ñu mën a wóyal seen liggéey sa boobule ministère dañuy teewlu kàddu euh, Ousmane Thiong Ndongaan ci micro Bakary Cissé ak Amadou Diallo. suñu contrat yi euh, daanaka suba lay jeex la 30 juin bëgg nañu vraiment autorités yi bàyyi bàyyi bàyyi ñu xel bu baax vraiment comme ça ñu mun ñu defal ay yi parce que si suñu département am na ñoo xamante ni am nañu ay CDI mais surtout tamit ñu recruter ñu au niveau de la fonction publique parce que boo defee euh, boo demee laajte suñu chef de service yi ñoom ñëpp vraiment gis nañu wax nañu liggéey bu am solo boo xamante Euh, contrat stagiaire yi ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy mëne nag mu ngi toll si mu ngi nekk si ci ci paiement pécule yi maanaam suñu indemnité de stage léeg-léeg day yéex jamono yi passé toog nañu euh, daanaka juróomi weer euh, amuñu amuñu woon suñu suñu suñu pécule suñu suñu indemnité mais teewul sama toog nañu daanaka juróomi weer comme li may wax rek ay patriote lañu mu mënoon nañu mënoon nañu toog seen kër neen duñu liggéey wala ñu def ay grève wala ñu nekk ci média yi di di di jurist yu jigéen yi ne fii si réewu Sénégal doon nañu rek euh, màggal anniversaire seen association bi nga xam ne dañ ko sampek euh, léegi ren ji la am juróom fukki at mu nekkoon occasion boo xam ne nag euh, yii la soxna dikkaat nañu si liggéey bu am solo bi nga xam ne jot nañ ko def fii si miim réew ba ñu tàmbalee boobule kuréel ak léegi nee nañ nag tey ji lañu gën a taxaw ngir xeex loo xam ne dafay rek euh, sàmm ak ak yelleefu tout tànk yi ak soxna yi fii si réewu Sénégal sañuy naataango Kajoor Cissé ak Pape Ousseynou Ngom teewe woon nañu la xew-xew. 1974 jàpp 2024 association des juristes sénégalaises di màggal juróom fukki at yu mu yëngu ci wàllu xeex ak ak yelleefu doomu aadama juróom-ñetti njiit ya mu jot a am liggéey ak lu toll ci 300 membres 1000 parajuristes. lu toll ci 70 projets ñu daal di koy doxal si seen juróom-ñeenti bureau de droit yi nga xam ne ñu ngi ko samp si lu toll si juróom-ñaari région jot nañoo saytu lu ëpp 68000 dossiers tey jii nañu tollu ci xayma mu mel ni ñoom juriste yi kontaan nañu bu baax a baax ci liggéey bi ñu def. ay documents yu bari yoo xam ne wax nañu bind ko ci wolof. ndax nit ñi askan wi mën a xam seen i ak seen yelleef jigéen ñi nga xam ne féete caada da leen a benn loi boo xam ne mooy daan képp koo xam ne yaa ngi dóor sa jabar wala yaa ngi koy métital taxaw nañu aussi ci loi bu ñuy wax euh, euh, loi 2020 buy criminaliser le viol et la pédophilie wàllu alam gi waaye itam wallu wàllu kaaraange ci bépp fànn gën koo ñoŋal mooy seeni mbébét ci at yi ñu dëgmal loolee itam doonoon thème bi ñu jagleel cinquantenaire bi lee ay question la yoo xamante ne dafa soxal euh, ak ak yelleefu doomu aadama rawatina jigéen ñi waaye itam ay menaces ci sécurité publique lu ci mel ne ay cyber attaque euh, jëmale ko ci jumtukaay yu xarale yi ak tamit di leen xoxatal. juróom fukki at yoo xam ne doxal nañ ko dafa tax itam ba ñu am yeneen i défi yoo xam ne moo nekk seen kanam. bala nga ne naam ne fa dafa ñu defal suñu association ba mu gën a dëgër baax na waaye dañuy yokk rek. bëgg nañ gën a taxaw ak gouvernement pour proposition yi nga xam ne yàgg nañ koo def pour texte yi mën a avancer ñu jublu ci bëgg aussi euh, jigéen ñi gën a taxaw gën a bari ci mbirum euh, politique ak lu ci mënti am ñi nga xam ne ñoo samp bile kuréel te ñu sargal leen bu baax a baax ci ndaje mi mel na ni joxe nañu secret bi nga xam ne mooy tax ba lii ñu tàmbali mu dal di wéy ku ci mel ni Suzanne Vertu Diop ay atam toll ci téeméer nekk magistrat bu jigéen bu Sénégal njëkk am waaye itam bokk si ñi sos AJS Kajoor Cissé euh, ñu àddu jëmale si lu soxal njàng mekk njàngale mi dem ba Gorée wutali euh, lycée d'excellence Mariama Ba ni ki démb doon nañ fa amal ab xew-xew bu mag a mag jagleel ko rek euh, ndongo yi nga xam ne ñoo gën a wane njàmbaxte si at mi ñu nekk nii doon nañ leen nag jox ay neexal yu ama am solo lu ni mel doon am si teewaayu jëwriñ gi gàlloo éducation nationale di Moustapha Guirassi jëwriñ ji ba mu yëkkatee ay kàddu taxaw na fas yéene jàppale boobu la daal daara. bés bu ñuy màggal xarañteef bu lycée Mariama Ba doon li gën a fës tey nag ci gaaw mu doon ab cérémonie bu am solo lool. avec ay not yu baax duguleet ñu koy daal di gis fii ci lycée bile ñoom nag bégloo seeni waajur itam ki ñu tuddee école bi Mariama Ba. te sama mag yi fi nekk ñoo nekk di ma won yoon bi. ñun lañ teg yaakaar bi ñu ñoo jigéen yi war a euh, gérer suñu réew euh, ëllëg. kon loolu mën nañ ko def dañoo war a gëm suñu bopp. ay mensonges yuy tegaloo rax ci dolli ñett ci ñoom ñu daal di leen jox ay billets ngir ñu daal di àggale seen njàng ca bitim réew ñëpp nag ñi ci jàpp bëgg lool ñu daal di porox ndoolu ci bés bi itam daal di jagleel ab bataaxal ki nga xamante ne moom mooy njiit bi ndaxte jàpp nañ ni lycée Mariama Ba bañ ko jëmmalee ci atum 1978 ba léegi am na lu bari lu mu manqué. je profite maa ngi profité si bésu tey bi daal di ñaan nguur gi ñu jox ñu statut bi ñuy xaar maanaam lycée d'excellence loolu nag ñu war ko jaarale ci benn arrêté ministériel ñu koy xaar nag ma di ko ñaan jëwrin bi. ba ñu jógee ci loolu nag ñu daal di féexal seeni xol. jëwriñ gi gàlloo njàng beeg njàngale bi nag ba muy jël kàddu daal di ñëwaat ci thème bi nga xamante ne moom lañu tànn boole ci di xamle ni dinañ gën a taxawu bi le lycée d'excellence. vous êtes puissant. xam-xam ngaa ngi fi naam nag lépp moo ngi dépendre ci li ngeen di andi lu bees ngeen xam ni mën ngeen a def lépp. soxal nag statut de d'excellence bi ñi ko gàlloo jox naa leen ndigal ngir arrêté bi ñu daal di koy jëmmal. ñu nekk ay téeméer téeméer élèves ñoom ñi nga xamante ni nag ñoo ngi wane seen i xarañteef leneen lu nekk seen mission moo di topp ci tànku ki ñu tuddee bile lekkool ci njàng mekk njàngale mi la ñuy des euh, ba tey jëwriñ gi gàlloo wàllu njàngale mu kawe mi di docteur Abdourahmane Diouf doon na amalub euh, doxantu sa université Gaston Berger bu Saint-Louis ba mu yëkkati ay kàddu nag euh, fas na yéene jàppale rek ndongo ya di étudiant ya nekk sa daara ju kawe jooje si jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy faral di jànkonteel fas na yéene it andi ay jooyanti si anam gi nga xamee ni noonu la ñuy tànnee professeurs yi foofee sa université Gaston Berger. parce que tey université yëpp budget neuf mois lañu am te ñëpp xam nañ ne at bi douze mois la donc nit ki mënoo jox ko dépense bu mat ba pare topp ci am di ko exiger añ bu neex. moo tax ma ne leen problème bi c'est pas le recteur problème bi c'est pas le directeur du CROUS problème bi c'est pas le ministre waaye nag ñun la fi yàlla teg ñu nekk ay responsable dinañ fexe régler problème boobu ba université jot seen budget ba nga xam ne fii ak année bi di jeex dootuñu am. problème problème mu budget boobu boo ko réglé réglé nga lu bari waaye fii itam dafa am ay problème chantier chantier yi campus social bi mooy CROUS ak campus pédagogique bi mooy rectorat ñoom ñoo ko bokk. fii dafa am problème néegu étudiant dafa am problème mu de classe yu étudiants yi di jànge dafa am problème mu chapiteaux yi heureusement pare na dafa bari ay problème yoo xam ne ci ay chantier la yu ñu commencé ba mu sori waaye pareegul moo tax fii ak rentrée octobre bu soobee yàlla problème yi mën nañu réglé wu te puisque ñëw naa gis ko xool sama bopp xam naa lu muy jar. xam naa yenn entreprise ñoo koy liggéey bu ma delloo dinaa seeti waa gouvernement bi nga xam ne ñoom laay liggéey ne leen problème bi fii la toll Université Gaston Berger lii la soxla te gëm naa ne li ngeen soxla di ko revendiquer dañ leen koy nangul lu ab lu yoon la loo leen war a revendiquer la on n'est pas en train de dire que vous exagérez vous n'exagérez pas et je l'assume mais nag loolu dafay laaj temps bu ndaw ngeen permettre ñu wuti ay koppar xibaaru tàggat eh, yaram ligue sénégalaise de football amateur danañu amal sa diwaanu Diourbel seen conseil d'administration sàkkute fi moo nekkoon natt rek liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci saison 2024 bi ñeel championnat amateur yi fi doon am nag ci teewaayu ko jiite eh, ligue sénégalaise de football amateur di Abdoulaye du Sow dañuy teelu nettali gi ak sañu ndaw ba ñu teewal foofee sa diwaanu Diourbel di Abdoulaye fay ngir tëj euh, saison bu football euh, amateur ligue sénégalaise bu football amateur ñoom nag dañu daal di amal ci gaaw bi ci njaareem ab conseil d' administration ngir daal di xayma li ñu jot def ci saison bile nga xam ne nag euh, dafay jeex ak final bi ñu doon amal ci Mbàkke final national doon dox ci diggante AS Kaffrine ak AS tey ci coobare yàlla suñu borom conseil d' administration amateur dafa am fii ci Diourbel te final bi war am fële ci Mbàkke. Euh, ci conseil d'administration bi nga xam ne am na régularité li ñu jàpp mooy euh, tey dañ doon xayma suñu championnat bi jeex tey. bi nag bu ñu sukkandikoo ci président bu ligue football amateur bi nag lu junni ci ay rencontre daal nañ koy organiser te ñi ngi xam ne ñoom fédération bi ñu ko doon jël ñu ko xaymaa tey li ñu tënk mooy ah, championnat bi en tout cas déroulé leen ci ñu war a déroulé te bu ñu xoolee championnat yi ci national un national deux. ak ci. lépp ci football amateur daanaka junni match lu ëpp junni match yooyu nañ ko sur l'ensemble du territoire Sénégal loolu mooy woon ni football Sénégal baa ngi doon te loolu yëpp nag amul dërëm bu nga xam ne day jóge feneen ku dul ci fédération ak club rencontre bi tax na ba ñi nga xam ne ñoom ñooy dirigeant football amateur bi daal di projeté ci saison prochaine bi ñëw ba teg ci itam proposé ñu ndorteelu ak ñu euh, jeexaleek élection législative ya tàmbali tey jii si diber gi ci réewu France lu tolloog euh, ñeent fukki millions yu doomu aadama ak juróom-ñeent la ñu war rek saban gàcc ya ngir rek ñu tabb ña leen war a teewal sa seen pencum ndaw réew Euh, li mu électeurs yi nag euh, bi la yoon dafa bëri lool ba jéggi dayoo nee nañ lim bu ni mel gëjoon nañ ko am si atum 1981 jàppale ni fii ñuy waxee yéen ñiy woteegum gu ba noppi nee nañu toll nañ si téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom jàppale nit euh, ni lu tollook ñeenti junni candidat ak fukk ñoom ñoo samp seen nënd di rek bëgg dugg sa seen pencuma ndaw réew loola waral yooyu la élection ñaareelu tuuru yi la élection benn benn fan si weeru juillet gii ñu dëppmal la ñu koy amal foofe sa réew France mbokk yi doon teewlu cant ak ngërëm ñeel na leen fii la ñuy ndax keppee jotaay xibaaru diggi bëccëg gi amoon mbégte lool doon jàkkaarlu ak yéen si kanam tuuti bu juróomi waxtu jotee di 17h dinaa fi dikkaat bu neexee sañu borom tënk xibaar yi si kaalaamay kocc ak nasaraan ñu bàyyi leen ngeen woy ak programme seen chaîne de télévision 7